bojo pueblo, pueblo, yeah. Yengi ya majara tirano ne wainala. Majoyo. Mayer mane. Wana. Nando ne wainala. Majoyo. Mayer mane. Aywa. que nos félicitations à Diouma seen émission bi vraiment ça a été cool.

respecté fee dañ fa am ay gan yu ñu invité quinze président de club ñu ngi ko président district suñ demee nan wane district bu mat de ñu njëkkante ñun dara ak ñoom invité yi ñoom ku ci nekk ñu la jox ñu la war jox yéen ñu yor nag encadrement bi suñu yeggee fee nu wax leen ni ñuy defee cheminement aywa ñan ci jàmm ñëw ci jàmm الهادي إلى صراط الشمس وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين jërëjëf beneen mbokk maa nga ne fekk kon gars yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu di leen sa tur ak sa sant di leen jaajëfal nag parce que woo nit mu ñëw wuyu si la yomb fii y président du district de Guédiawaye. bi nga xamante ni département bi yëpp moom mooy kilifa bi mu ngi nii muy le président Abdourahmane Ndiaye ñi gën gis nii yëpp c'est des présidents de club yoo xam ne ñii ni ngi jógee HLM ñii Wakaam fii Géejawaay waa environnement ñëpp a ngi fi Fass présidente bi ñëw na ñoom ñëpp ñëw nañu wuy sinu ñun nag noo ko bëggee nii de façon soft maanaam bëgguñu ko def randonnée boo xam ne ñëppay ñëw dañu sélectionné rek quelque woo leen ñëw suñu bëggoon ñëpp ñëw ñëppay ñëw mais ñun noo comme nii la demee nan ko defee nii sélectionné quelque indi leen ñu ñëw ñu ànd doxandoo ko parce que kii première édition la te thème bi jàmm la ci xol la paix dans les cœurs moom la ñuy demee ñun léegi nag moo waral nu dajale fi ñëpp ñu bëgg ñaan suñu borom mu may nu dox ci jàmm yegg ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm ku ne sa xol fii yii nag nga xam ne joxe nañ ko dañu nekk en partenariat président ak CETUD moo ñu jàppale vraiment ci lii nii faisabilité bi et tout ce qui ak membre club bi ñoom it kenn demul des ñoom ñëpp dañ ci def liñ ci war a def léegi nag li ci des moom mooy lenn ñu jox la yow en tant que président de district nga wax boo waxee joxe mot de départ bi nu dem bu nu yeggee nag li ñuy wax yëpp nu wax ko fee sinon mi ngi gën a naaj. waaw président yaa donc asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di uh, jàmm ju bari. waaw di rafetlu woote bi doy ñuy rafetlu woote bi ak uh, suñu nattango président HLM mi ngi fi président ci sa avion boo ko am na président Fass également mi ngi fi président littoral environnement également mi ngi fi. donc président waay presque ñëpp ñëw na ku ñëwul tamit yónnee nga ñu rafetlu vraiment affaire bi euh, yal na ci yàlla def jàmm lu dul jàmm nag jàmm ko gën moo gën fii ñu ne moo gën fa ñu jëm donc li ci des bu ñu demee ba egg ci fa ñuy euh, atterrir ñu waxtaan fa ñuy waxtaan yal na yàlla defal ñëpp jàmm et je vous souhaite une bonne randonnée donc euh, un pour tous tous pour un. jërëjëf jërëjëf waaw kon gars yi mi ngi doon kon départ bi président joxe na ko. bàyyi di taw booy ngeen toog nii di yomb a booy yomb a si leen waay waay eh. waay aywa ñaari bàyyi oh ñaari bàyyi ñaari bàyyi ñaari bàyyi ñaari bàyyi ñaari bàyyi ñaari bàyyi Allez, pareil Allez, pareil Allez, pareil Allez, pareil C'est bon, c'est bon Allez, pareil Allez, pareil Déglo, déglo Déglo, imam déglo, déglo Franchement, après d'un pape, on a bien un malakan, on a bien un malakan. waaye vraiment rafet na lool président Abdou Ahmed ñu ñaanal ko yéen yàlla na ko yàlla je remercie aussi tous les présidents de club yi fi teew ak tous les rangs de l'honneur nag bis bi daal dafa taaru ala daw me na de dafa dafa ala daw me yal na yàlla defal jàmm defal jàmm ñëpp nag ko fi indi Dakar yàlla ko yàlla jéggal yàlla yàlla jéggal ko am aussi aajo yàlla yàlla faj aajo yi yàlla mën na ko sëñ bi mën na ko da nga moo tax ak ay ñaan rek da nga moo tax ak ay ñaan da nga moo tax ak ay ñaan incha allah bu déwénee bu déwénee yàlla bu ci kenn màkk nag. yéen de di ngeen màkk yàlla bu ci kenn màkk. yàlla bu ci kenn màkk yàlla ñëpp moo dóor kenn bañ a feebar. yéen ñëpp di ngeen màgget. non du ñu màgget sax ah du ñu màgget. yéen ñëpp di ngeen màgget laa wax. yéen ñëpp di ngeen màgget. yéen ñëpp di ngeen màgget. yéen ñëpp di ngeen màgget. yéen ñëpp c'est tout. ah ñu ngi remercier baax a baax a baax. amiin waay amiin waay. maanaam ah, commencé par le directeur ba Tabarakalla. jërëjëf amiin. Eh, yàlla na fekkee déwén ak bare bare. amiin amiin amiin yàlla kattan ñu mën na ko yàlla na ko yàlla. amiin waay kon ñu muy seet a jàng Fatiha ak ayatul kursi yow. leer laa bare ak naas. yàlla mën na mën na. waaw gaaw leen tuuti man gaaw leen la ak ngërëm ñu jëmale ko ci club jiite di ko sant moom di sant président club yi fi ñëw ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax président cité avion mi ngi fi Wakam la jógee président HLM mi ngi fi maanaam mi ngi fi waa Baye Ndiarème ñi ngi fi waa Baye Laay ñi ngi fi donc kon c'est un c'est un melting pot loolu yëpp ci à l'image de Pam Ndoye parce que mën nga luy chaise mën nga luy oto mais mënoo luy nit parce que ci taxawaayam moom moo tax parce que ñun kenn ku ci nekk rek dafa nga bàyyi soxla pour soxla moom parce que dimension bi mu toll la yàlla xam na ni du ko jotee moom xam na ni du ma ko may dara donc ci taxawaayam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjee di randonnée. yàlla attan na ko yal nañu ko yàlla defal. ku fi indi tawat yal na ko yàlla sawara ku fi indi soxla yal na ko yàlla faj. Pam Ndoye euh, jërëjëf encore une fois. Pape Sow jërëjëf Aïssatou kii Fass la jógee kii mooy présidente euh, Fass Aïssatou Fass dëgg yàlla euh, ñoom Ndoye gërëm na leen da nga di waaw makka dafa métti <laughs> kon yal na yàlla defal ñëpp jàmm. kon ñu mooy bañ a guddal. ñuy wat leen bi ñu defee li nga xamante ni mënu fi indi muy ànd na vingt kilomètres ñaanoon borom bi mu may nu yegg ci jàmm ak salaam yàlla may na ñu fas yéene ñii di waat nag suñuy kër di leen gërëm nag di leen sant. commencé ko ci ki nga xam ne mooy kilifa randonneur yi fi nekk muy président district a Guédiawaye mi nga xam ne instance fédération randonnée moo ko fi représenté ak l' ensemble des présidents de club yi nga xam ni yëpp ñëw nañu uy si waa Fass a ngi ci ñu jóge ci bokk mi ci district bi jóge Wakaam Fass euh, HLM ñoom ñooñu ñëpp ñoom ñooñu ñëpp jóge ci beneen district ñoom ci district Guédiawaye fekk si ñu li mën a président yi nga xamante ne ñu ci district ñu bokk comme kon gërëm ak cant ñeel na leen di leen remercier yéen aussi yéen ñi nga xam ne dañ leen a woo ngeen ñëw fekk si ñu membre club bi comme ñeneen ñi nga xamante ni xëy na ci yeneen i euh, club la ñu bokk fàtte naa club bu Médina am na koo xam ne moo fi représenté aussi ci district Dakar la bokk ñooñu ñëpp kon donc gërëm leen sant lii nag da mbir moo xam ne ci ñun bii mooy suñu première édition yàgg nañ ko def mais ak club bii laa wax bii première édition la ñu tuddee ko le vingt kilomètres jàmm ci xol Fadiakh ay environ bii nag thème bi mooy la paix dans les cœurs jàmm ci biir xol yi mooy thème parce que jàmm su amul mënoo am dara te jàmm bi ñu am sa biir xol lay lay lay lay nuyoo ñu jëlan ko nag def ko suñu thème avancé ndoo ko doxandoo ko seet ni nit ñi dañu war a bég ñu bégal leen loolu rek moo waral li yëpp ñuy gërëm nag képp koo xam ne partenaire nga jàppale surtout CETUD CETUD il faut nit ñi xam lan lay mën mooy liggéey CETUD état bi da ko fu teg établissement public bi pour ñuy faciliter nit ñi l'accès au transport seeni déplacement parce que xat na ci leen créé BRT bii ñoom nu ne ci biir di ci liggéey kon jaaraama sétude parce que ñoom ci bëri def nañ ko ci ci ci kii gis ngeen cap yi nga xam ne noonu ko jox ak yeneen sachet yi leen di jox léegi ci kanam am na ay sachet yu ci nekk yoo xam ne sétude moo nu ko jox di gërëm le directeur général Thierno Birahim Aw ak euh, madame Diop ma fa nekk ak maam Diarra Diakhaté macha allah ñoo xamante ni ak bëccëg dañuy jox ko man du nenu di ko def wax rien que pour mu réussir mais lépp nag madame Diop waaw wax naa ko mais lépp ci Pape Maguette mii nag la jóge BRT c'est pour nga xamee Pape Maguette mii moo tax mu xam moom moo ci def lu mucc ayib ñi ci des nag vraiment ku ci ne def nga li nga war a def ba affaire bi réussir macha allah waa club bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois de di leen wax incha allahu rabbi ni ngi ñaan yàlla mu may nu defaat ko ci beneen anam bu gën a dàq am na nag lu ñuy waajal nii ci mois de janvier bi incha allah di ngeen ci xam dara après yéen allah allahu rabbi xam naa ni loolu a parti de demain di ngeen ci xam dara incha allah loolu daal laa amoon ci lu may wax cat gërëm la rek ak sant gërëmaat nag président yi nga xam ne dañoo jóge fële ba fii vraiment sagal ci ñi ñoom fu nu woon wuyule ndax répertorié naan xam naa leen lu nu ma woo incha allahu rabbi club bi dina jóg nu ànd ak ñoom dem. parce que ñoom ñii ñëpp ñu ngi ci calendrier randonnée ren 2024 date yëpp incha allah xam na bu ci jot dinañ nu ko wax nu fabu ñu nit dem fekk ci leen teraanga teraanga rek koy leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ku ci ne nga delluwaat sa kër ci jàmm ak salaam ah di ñaan yàlla nag mu may nu. kon muñ nanu muñ dañuy nangu di muñ dogalu yàlla day am waaye nañu muñ rek alhamdulilahi rabbil